abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa yu wér te wóor aju ci réew mi daal li nga doon feeg yaa ngi koy bu ragal wax li nga doon feeg yaa ngi koy doon bu ragal wax yow mi boo ko soloon kenn du la wax dara tous duñ la ko lu ñu yow duñ boo ko soloon dara duñ la ko dama lay wax rek misaal rek waaw boo ko soloon kenn du la wax dara. man bu ma ko sonoon kenn du ma wax dara keneen bu ko sonoon duñ ko wax dara waaye nit ñi ñoo mel noonu gis nga iñaan min chéri haasin isa hasada isa hasada yi nga iñaan bu yëngalee borom yàlla nee na bu jure bu juree doom doom ñi day bijaaw ndax day màgget waaw ki ñaan baaxul da ngay gis koo xam ne buy wax ci nit ku iñaan euh, nit ku nit ku mbañ day soxor waxin bu soxor la koy wax da koy wax ba ñàq waaw jaru ko daal dàll mbaxana mbubb waaw léegi ñoom bu ñu bëggee faseele góor jigéen yi mbubb yooyu ñoom ñooy kan ñoom ñoo nekk jigéen ñooy kan boo nekkee góor jigéen nekk ko rek waaye nag doo jël kulóoru yéeri jàmbur yi di sol ñu naan kulóoru góor jigéen ñaa ngi kon ña ko daan njëkk a sol ci duñ góor jigéen nag ña ko daan sol nag ndax am na ñu koy sol donk nit daal góor jigéen daal du sol du melokaan xaal la xaal bi ngay eh, dañ lay bett ci ngay sëy góor ñu gis la ngay sëy góor wala eh, sa góor di la sëyee ñu doog ne la góor jigéen nga waaye mbub mi mu sol ak daal yi mu sol ak mbaxana mi day dem ba dootoo mën a solu bala ngaa génn sax da ngay xool li ngay ah ba man sama man sama garaam bi est-ce wax ne góor jigéen la ah ndax mi daa xonq waaw da ngay dem a dem a dem doo xam lay sol ndax loo sol ñu tuddee la ko waaye nga ne leen tey yow daal solo sa rek yow moom nga doo moom solo sa boo dee moom nga dañ fudd sa ndigg ba mu tàlli ndax yàlla dana la leeral fekkee doo ñoom danañ fudd seen ba mu tàlli yàlla dana leen leeral kenn ku ne na xam li mu doon parce que yàlla waxul ngeen di wër nit ñi di wax seen sikk yàlla waxul loolu daf ne wër li nit ñi ku ci xam lu baax waxal ku xamul lu baax maanul ci nit gi ndax léegi-léeg nga wax ci nit dara yow nga dese mbir ma yàlla topp la ko kooka moom topp na mucc na eh, léegi-léegi nga wax ci nit dara yàlla dëgg ci texeel ko kon nañu moytu rek dàll yeeg mbaxana meeg mbub meeg yépp ci yam nañ moytu rek waaw man daal li ma ci xam ku ñuy tuumaal mm. bëti guddi mm. doo socco yeey li ba ne mm. ku ñuy tuumaal ba ci guddi doo soccoo yeewi gone gana moom daal luy jege tuuma ci yooyu na ko moytu yooyu na ko bàyyi li nit ñi nag di ko topp lu ñuy topp parce que col jaru toppandoo boo ko toppee te kii li mën a sol mënoo ko sol bu yàggee nga bàyyi waaye daal lépp luy niru tuuma nga xam ni lii rafetul na ko bàyyi parce que itam nag nit day wut soppe waaw wa tawaddudu ila naas misful aqli yonent bi nee na di def lu la nit ñi soppee genn wàll xel la waaye di def lu la nit ñi bañee maa tey genn wàll ndof la waaw kon nag nañuy def lu ko nit ñi li nga xam ni ñeeñ moom lañ yore muy seen melokaan man damay daw coow loolu damay daw loolu doonte nekkuma ko dama koy daw bul ne rek nekkuma ko nangam nangam danga koy daw mm-hmm. waaw daw coow baax na daw coow baax na am na koo daan wax daw coow xaw ma mooy kan waaye defe naa woykat la daw coow waaw daw coow dafa baax nit dafay moytu luy indi wax nit day moytu lu ko indil coow nit day moytu lu ko indil uh, ay ay ay ay ay ñool ñool baaxul su ko defee moom daal eh, li ma koy digal gannaaw loolu day indi tuuma na ko teg fële sol yi bëri na colka yi bëri na ma seet yi nga xam ne du indi tuuma ma sol ko waaw yi indi tuuma ma bàyyi ko parce que yi indi tuuma nit ñi moom kenn mënu leen teew waaye nag bul seet boo ni seet waaw nit ñi kenn mënu leen teew wax waaw ba tey yow li nga sol ni roog ñëlee du neex a dindi da ngay dimbale ñi nga xam ne sopp nañ la ngay sol solo parce que am na soppe bul sori boo xam ne amul télé amul rajo amul dara waaye fu mu la dégg rey boppam bu déggee ci yow ne daan boppam kook ngay dimbale waaye bul ko bul xool ci ñuy dimbale ñooñu la sori ci sopp la lool nga jaral leen lu ne ñun soppi nun lay def te dimbale ñu ko sopp ci sori ko waaw ah, te mënuñoo jot ci moom te luñ ko wax mu naqari leen ñooñu ñu ñooñu ngay ñooñu ngay soutenir waaw ah, kay waaw moom day loolu xawma ñoom lu ko waral ndax bu waalis melee nii ñee waali sol te am na lu gënoon a farata loo xam ne waxuñu ca loola ñoo ko xam xëy na lu ñu seq la xëy na lu ñu mel ak waal la xëy na lu waalee leen neexul xëy na lu lépp ngi ci biir waaye de ku yebu def ndànk de ku yebu def ndànk ndax yàlla moom buy setal wecc lay doon nit moom day seetal mu lëndëm waaye yàlla buy seetal day doon wecc ci bëri na lu nit di dox di ko wax di ko jëf te buñ demee ba ci cëppaandaw nga nekk li nga wax du dëgg kooku nañ ko moytu nit daal day wax lu mu gëm loo gëm waxal loo gëmul bàyyi waaye rek waxukaay yi bëri na naa wax ndax ñu gis ma te boo waxee ba pare ne yónni ma lien yi looy looy looy yi yéen a ngi ñii kan laa masa laaj lien. Moustapha ah ah yéen ni ma lien kay wax nga ba pare loolu laaj lii ah, ah, seetal loolu. man yéen ñii yéen laa masa laaj lien man bu ma paree dem naa sama yoon. mais mais yéen ni ma lien yi de. ah, ah nga woo mu mu nga yëg ko jot woo ko téléphone mu ne waa sëñ bi man maa ngi yow de maa ngi koy toppatoo léegi nga jot. mu ne waaw nga yónni ko ma wala te merci waay merci waay waaye léegi lien bi nga jot loo koy def yow wax nga ngir yàlla pare na jeex na waaw jeex na ma lien yeeg yónni ma laa yeeg yónni ay ay ay ay ay tappale la rek nañ leen ñu jël dëgg nañ leen ànd ci dëgg Sénégal benn la ñun ñëpp benn lañu nañ leen rafetal nañ leen rafetal kat moo gën waaye yow soo soo soo waxee ci nit bëgg nga buñ ko jàppee wala ba coow li bëri nga gis ko mu jox la dara nga génn ci am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy business ci tuuma yii la ñuy business dañ ciy dox di ci wut dara suñ tuumaal nit ba mu bëri coow mu mu gisee ak yow nga ne ko yi xam nga man lii nga ma waxal def mu ne ah waaw daal di yëkkati dara jox la hmm. nga dem ne waaw booy man kat dama defoon ne nekkee demewul noonu waa léegi xaalis bi nga jël nag xaalis bi nga lekk nag dërëm bi nga yàq nag loolu fi ñu koy fajee du la jox dërëm dërëm bu xëtt duma la ko jox sooy boo nga def man man noonu rek laa xam gis nga man boo jubalee maa mën a ànd yow soo jubal du ñu ànd koo mën a doon amal alal ju jeex di ma jox lu dul jeex ci waxin waaye lu dul jeex amul ndax maa indakum yanfadu wa maa inda Allaahi waaqin baaxin li ngeen yor day jeex li ma yor du jeex waaw ku yor luy luy jeex tax mu lay wax loo loo gëmul nga dina def loo gëmul pour lan waxal loo gëm defal loo gëm waxal loo àttan defal loo àttan loo xam ne buñ la ko sëfee ne la yaa wax nangam nga ne waaw waaye ne la ndax yaa wax nangam nga naan ah man man de seetlu fu ma ko waxee fekk da ngaa yaa ko wax yaa ko wax nañ leen moytu loolu ànd yi na ànd yi dëgg waaye ànd bu dëgguwul du sotti waaw lu jóg nga jóg lu jóg nga jóg lu jóg nga jóg ne ci deri nit ñi di yàq nit ñi loolu baaxul waaw baaxul nit ki dañuy moytu lu yàq deram waaw lu yàq deru nit baaxul kenn na ko ni moytu ko waaw lu yàq deru nit nañ ko moytu ci wax loo xam ne du dëgg def loo xam ne du dëgg nañ moytu loolu voilà. ah déet man kay bu ma ci dugal man kay bu ma ci dugal bul ne benn rôle bu ngeen ciy joué da nga benn rôle bu ci ñenn ñuy joué. waaw ah, kay man kay bu ma ci dugal. parce que góor jigéen dafa sensible. très sensible. nga wax ci benn wax rek ñu ne baadu moom la. dafa sensible. góor jigéen daal li ma ci jàng ak të'atuna rijaala shahwa min doon misaay la alxuraan wax yàlla daal nee na bàyyi leen góor ñi ngeen di wut bànneex ti dem ci jigéen ñi jeex na jigéen ñi laa sàkk jox leen musóor sàkk leen yéen jox leen laafa ngeen di séq waaw moo tax góor sañ wax ak jigéen sañu wut ci jigéen bànneex ja ko lew su dee jula lewul bu ngeen séyee ñu jaaloo nga ñu rey la boo amee jabar boo amul jabar ñu dóor la téeméer yar waaye bu dee ci góor jigéen moom rey rek góor jigéen buñ ko xamee ni kii góor jigéen la moo ne man góor jigéen laa wala ñu bett ko ci la koy la la mu koy def ñu xam ni kii góor jigéen la ti du ko weddi ñu rey jamat duñ ko rey direct indirectement lañ koy rey ku koy leer na léegi nag kuy déglu ay imaam yeeg wala ngay déglu ustaas yeeg wala ngay déglu yaa xam yow defal li nga xam góor jigéen daal dañ koy rey fexeel bu ko doon bu ko doon bul def lu ko niru wax lu ñuy reyee nit ëpp naa def mm-hmm. waaw da nga koy moytu loolu rek la ah yéena yem rek ay benn ngeen di ki ki man mii jot di la jot li muy sàcc alal jàmbur. Mm-hmm. di jël di la jot li ngay joxe nga ngay <laughs> yow kay maa ngi yow benn lañ rek mm-hmm. ay sàcc lañ rek mm-hmm. ñoom ñëpp benn lañ kii liggéey ci góor jigéen di la jox yow ngay liggéeyaat yow yaa ngi moom yem rek benn ngeen waaw parce que lee muy lii rek waaw dañ koy moytu gis nga léeg-léeg nga dégg dégg naa démb benn waay bu ma woo ni ma waaw koo xam ni amul dara. Euh, fi mu nekk day jaay sàngara ndax loolu euh, te bu bu bu ko jaayul du ki ma ne ma ne ko ah bu dee li nga wax am na mm-hmm. bi ma pare keneen woow ma téléphone ma man nii la man damay def lu mel noonu mais xoolal yooyu man Sénégal laa dëkk maa nga defe ni ci bitim réew la nekk ci biir réew mi seetal loolu ma xam ne Sénégal gi mm-hmm. naka la fi nit di mën a nekkee di tumuranke di ñàkk ñàkk ñàkk ba loolu di ko dal loolu laay seet naka la nit di ñàkkee ñàkk di ñàkk ba loolu di ko dal ngay xool waaye daal li tax nit war a jël alal ju di ko jëfandikoo yeggaguñ fa de fa midd di yeggee dagan nga lekk ko foofa la alal ju xaraam daganee nga lekk waaw te da koy tuub te du toujours nag yaa ngi ci rek toujours nag yaa ngi ci naan ah man daal aw man leneen xam nga man lii la am sàngara si bu ma amee leen bay ba dee ca ba dee ca loolu doxul leen ñu doyloo li ñu am suñu ko doyloo yàlla danañu dimbale suñu bàyyee lu daganul yàlla danañ jox lu dagan moo gën ëpp ñu dañuy wut rek dañuy <laughs> wut rek di wut rek leen fi indi nañ leen dimbale su fekkente ne xam nga étranger dafa baax yéram ko gis nga nit bu bàyyee mbokkam bàyyi dëkkam bàyyi famem dox doxandeem dugg na suñ ca boole na jàpp ko dee na mm-hmm. waaw luñ mën a def nañ leen nañ leen nañ leen nañ leen euh, rectifier te jéggal leen moo nag jël leen ci kaso bi baaxul nañ leen rectifier te su fekkee ci manifestation yi lañ bokkoon def nañ lu ñu warta def ndax jógee sa réew ñëw fii di liggéey si nga xam ne wóor na la ne bokkoo fi bu ma defee dara danañ ma jàpp nga dugg ci manifestation yi ñu jàppale yaa tooñ sa bopp su dee dañ laa fekk ci mbedd mi jàppale nag dañ laa tooñ dañ laa tooñ ki tooñ boppam ak ki ñu tooñ du benn waaw ki nga xam ni dañ koo fekk ci mbedd mi mu ne ci liggéeyam ñu jàppale ko ramas ko kooku dañ koo tooñ yàqal ko waaye ki nga xam ne dafa tëj fële alalam eh, def ne manifestation yi gën a sakkan ah buñ la tëjee na nga xam ne sakkanul nag da nga xam ne lii sakkanul man la ma nekkoon a gën a sakkan nañ leen bàyyi loolu xam nga moom moom daal moom daal moom daal. non du compliqué tabaski lañ jëm téye nañ ko mante li jëm tabaski affaire seen affaire affaire la ak yàlla yow kay moom kay moom daal mu nga toog bàyyiwuñ ko mu lijjanti ci xar seen affaire la waaw gis nga mbiru yàlla ak mbiru nit du benn nañ leen bàyyi xel yàlla nañ leen bàyyi xel yàlla nañ bàyyi xel yàlla waaye tii nit ba mënta lijjeen tabaski te tabaski di sunn mu man ko nga téye ko fenn rek du noonu àtte ko def ko li nga koy def wala nga bàyyi ko mu def mu sàkk pexe nañ ko def liñ koy def bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ko rek waaye moom bu lijjantiwul xar yoonam nekku ci yoonam nekku ci waaw yoonam nekku ci na toog di leen seetaan rek ah da fekk bëggul lijjanti xar bi waaye xar kay ko ko bëgg a lijjanti amul problème suñu na téyee ne ne la doo lijjanti xar nga ne amul problème baax na. Euh, moom man la leen jàpp ba ñu ne ñu def combat daal xaw ma ko leen daal moo mën a nekk ñu jël Ousmane sonk def ko il seen xalaat. lii seen xalaat waaye jàppuma la bàyyiwuma la du wax ñoom itam ñi def manifestation wuy yu dugg ci biir yàq àll yi itam mu ngi ci parce que gis nga coow li ngay dégg ni ñu di ko ñu di ko wax euh, ñi ñi ci dugg wayu yi la wayu yii ci dugg laxasu ci def toj toj yi yàq yàq yàq yi bu ko defee ñu naan ñu naan nit ñi déedéet fekk sa saay-saay ñoo ci def loolu saay-saay nag kenn mënu ko kenn mënu ko may teera eh, waaw loolu niñ ko war a bàyyi xel waaye buñ buñ buñ buñ jël rek eh, manifester yàq coow lépp lu koy waral daal nañ ko bàyyi lu koy waral nañ ko bàyyi réew mi ñoo ko bokk mm-hmm. koo yàqal boo ko seetee sa mbokk na ku la yàqal bu ko si boo ko seetee sa mbokk wa nañ bàyyi loolu réew mi benn la waaye li leen naqari kii di njiitu réew mi man daal maa ngi koy conseil di ko ñaan rek njekk rek maa ngi koy ñaan njekk rek moom daal lépp lu mu xam ni dana jaxase na moytu loolu lépp loo xam dana jaxase réewam na moytu loolu lépp loo xam dana indi tuuma réewam na na bàyyi loolu man daal loolu laa koy ñaan parce que itam euh, tuuma baaxul te Sénégal image bi mu bi mu commencé wane ak ba yo yób wane woon bu njëkk du benn waaw fi ne ñu bëri ci réew yi ñemewuñu fi indi seen alal mm-hmm. du tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk ci coowul tabaski beek nangam nangam xar yi dugg yi xar yi danañ dugg si du waral xar yi dugg ñu ñàkk a wóolu waaw ñàkk wóolu kon nag pour ñu wóolu réew mi nañ fexe ba suñ image bi dikkaat bañ melaat nañu waroon a mel bu jëkk loolu moo gën waaye maa ngi koy ñaan daal lu mu mën a bàyyi na ko bàyyi lu mu mën a bàyyi rek na ko bàyyi te yàlla li nga fii ma ko ñaanee danañ dema dem ba ma màgget ba dee mu màgget dee ñeneen nekk fi jeex na adduna day jeex adduna dara saxul koo gis muy ndaw day xëy màgget koo gis mu màgget day xëy dee jeex na léegi boo dee nag bu la yàlla euh, auditer nooy def da nga bëgg mu baal la na nga bëgg yàlla baal la boo jekkoo si ñu baal la kon moom mooy président ku mu neex ku mu naqari fi ne muy njiitu réew mi yëpp ñëpp ku mu neex ku mu naqari ndax yàllaa ko tànn allahumma maalikal mulki tuutil mulka man tasha yàlla la neex ma def ko nguur mu jox ko buur gannaaw yàlla neex nag mu jox ko nguur kon yàlla la ñuy topp waaye moom daal na fexe ba nga xam ne loolu amul moom na defar image yu réewam ba buy dem bàyyi ko image bu rafet waaw ñu kaf ree mu jeex su ko bàyyi nii. si suñu chaîne YouTube su nekk ay xibaar ci réew mi ak bitim réew.